ci sëriñ Mansour mooy sunu baay mooy xalif général des Tidianes xam naa sax mooy joxe seeni nuyoo ak seeni ziyaaraat ak seen dalal jàmm ak seen ñaan sant ko it ci nangu gi mu nangu cër bi ñu sedd ko ko mu jël ko parce que jël sa cër ci fulla la bokk jël na cëram ndax moo ko moom waaye def na ko ak mbaaxam ku ne xam na ni tey du bis bu mu amee yaatu am na gan yu fi jóge léegi ba Washington lañu jóge ñëw fekk si ko fii ngir bëggoon gis ko ci li muy doxal di ko liggéey di ko liggéeyal maamam di ko liggéeyal ay baayam di ko liggéeyal réewum Sénégal kon jaadu na bu nu ñëwee bala ñoo wax dara ñu feeñal njabootu googu ci moom ak kóllëre googu ak cofeel bi mu am ci njaboot gi li mu wax léegi mooy li war rekk sukk du la te yóbbaale say oom nun nu sukkal ko du nu tee doon Moustapha kon dañu koy sukkal ba tey di déwén mu may nu nag ndaw sële ca kër ga nga xamante ni mooy sunu lu ne fu ne di sunu lépp fépp beneen bi ma nuyu kilifa yi fi daje d'abord le de la jeunesse sant ko ci tànn gi mu def tànneefam ci Tiwaawan mu nekk passage obligé ci buy doxal lu mel nii di programme bu ko boroom réew mi jox d'abord mu am mbaax bu toll ni tàllal ko ci ndawi Sénégal yépp donte la nit a ngeeg alalam waaye du ko am sa alal ñu jox la ko il a su ale à rencontre des jeunes dem wax ak ñoom kenn ku ne mu wan la déglu la jox la lu mënul ñàkk ñaareel ba di kii di Abdou Ndéné Sall di sunu doomu baay di sunu xarit nu bokk liggéey bokk benn génération président Macky boole ko ci ñi mu tànn wóolu leen dénk leen li mu leen dénk bërki démb rekk lañu tase ci ngi gi mu taxaw ca taxawaay bu rafet leneen lu dul loolu bu jotee mu taxaw ca taxawaay bu rafet ñu ngi koy jaajëfal te di ko ñaanal yëgam ci kilifa yi yëgam ci Tiwaawan yëgam ci lii nuy liggéey yàlla na ko yàlla jàppale beneen bi di sëriñ Abdoul Aziz Diop ministre conseiller moom it di jàppale borom réew mi nu séq nag maak moom partenariat booba dara du dara may njaatigéem fii bu ñëwee nooy bokk toog fanaan waxtaan ba trois heures du matin mu dugg ci néeg ma dugg ci néeg te mooy ñooy sunuy mag ndax ñoom ñoo nu féete mag waaye yomb nañu woyof ba ñëw bu nuy def ñu bokk ak nun beneen bi muy cant gi ñuy sant jëmale ko ci le maire de Tivaouane en la personne de monsieur Diagne Sy Mbengue sunu mbokk di sunu doomu baay di sunu xarit ñëw teewal ko tey jour ouvrable la waxoon na ma ni sax bu ma ko mënee damay ñëw teew ba mu jeex ma delluwaat ca bureau waaye ku ne xam na IPRES li mu nekk ci ay coono yu ko war te bis bi itam yombul lool ki ko fi teewal di maas ñu ngi koy jaajëfal kàddu yi rafet na ak dalala nuyuwaale monsieur le préfet de Tivaouane nga xamante ni ak nag li nu war yëpp ci orma ñu di ko feeñal ci moom ak yeneen préfet yi fi daje te xëy na ñëpp mënuñu leen a tudd waaye moom bu ñu ko tuddee rekk dana mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp nuyuwaale le collectif des maires de département collectif sunu goro sunu mag di taawu Serigne Abdoul Aziz mu ngi fi di El Hadji Lo seq ko ñi mu ko seqal di sunu mag di sunu lépp fa tabarakallahu moom it mu ngi koy jaajëfal di ko taxaw nuyuwaale le président du conseil régional départemental de Tivaouane soxna Seynabou Gaye Touré lii nuy def noog moom a ko bokk bu teewul ngànt la ku ne xam na ni fan yu néew woy juram yàlla dafa dogal mu wuy ji boroomam yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ci moom te teeru ko yéegi ko ca barsaxu mag ña fa tabarakallahu teewul waaye yàpple na président conseil départemental de la jeunesse ñu ngi koy nuyu sunu commissaire sunu mbokk tabaarakallahu ku ne xam ko ci itteem ak taxawaayam moom it ñu ngi koy jaajëfal ci eh, taxawaay yi mu jël pour que bi kaaraange njaboot yi mën a nekk ci lay tuddaale it commissaire di sunu eh, mag Ablaye Diop ci yoonu Kaolack laa ko dabe ni ko dafa am ay ndaw yu bëgg a ñëw rallier si Tivaouane te grève transport bi nekk grève bu leen xaw a gàllankoor ci yegg si ca foofa la joxe ndigal ya mu joxe yaakaar naa ni cette salle n'a pas senti de trop la grève te xam naa ni bu grève amul woon li fiy daje boo moytul dana ëmb jumaa ji kon nag moom it ñu ngi koy jaajëfal nuyuwaale sunu doomu baay Hadj Ousmane di ko jaajëfal ci turu dayratu muxtafin noo bokk lii président koskaas ànd nag nun ci liggéey liggéey bi ba mu mel nii te noo séq nag sasu liggéey bi ci tarbiya bi muy sunu xarit di sunu soppi waaye dama bëggoon rekk wan mbooloo mi ci ñetti mbir yoo xamante ni am na bés bii ci fukki fan ak juróom lañu ko xalaat naka jekk vacances citoyennes daf daan am naka jekk le ministre Mame Mbaye Niang wala laata moom prédécesseur am yi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon dañu daan ñëw Tiwaawan naka jekk daan nañu ànd ak nun lépp loo xamante ni activité de jeunesse la ñu séq ko di ko liggéey waaye nag dañuy wax ni xob yépp rocci ngeer a ca ëpp solo melokaanam mooy fi mu yegg ak nun d'abord de la reconnaissance de cette structure jeune que le ministère reconnaisse qu'il y a des jeunes outre que ceux lanceurs de pierre ceux qui ululent et polluent l'atmosphère des autorités cette jeunesse de la Moustachina a choisi de s'activer dans le développement communautaire, de se mettre au service de cette communauté donc Seydi El Hadj si à a su implanter donc Tivaouane avec les enseignements yi mu ko booleen ñu di ko gunge ndaw yooyu ñoo taxaw bi ma dikkee mu ne ma dañuy jaar Tivaouane daan fi def reboisement daan fi def Euh, di samp garab wala boog camp de vacances waaye man daal dama xalaatoon ni lu mel ni réew mi fi mu toll yëkkati sasu liggéey jëm ci lu fàttaliwaat nit ñi seen warteef jëm ci seen réew farata la lu fàttaliwaat nit ñi ni mbaaxu mag ñi su réew mi dee am lu mu am donte la am na lu feeñ ci wàllu ressource minière wala yeneen ressource halieutique wala laneen defe na la lumière du Sénégal c'est l'existence de ces écoles confrériques leeru Sénégal bu ñu koy wax mooy yàlla dogal gi mu dogal ëtt diine yi fi nekk nga xamante ni su ñuy wax diiney Sénégal wala ñuy wax euh, originalité diineem yàkkaar naa ni ñii la Seydil Hadj Malick Serigne Touba Cheikh Bou Kounta Ndiassane maam Limaamu Yoof ak nag sunu wéju ko ca Canaba di sëriñ Canaba ñii tey seeni doom ba seeni sët ñoo fi des maam Abdoulaye Niass maam Ibrahima Niass ci Kaolack ak ñu mel ni ki ñoom sàmm nag leeru diine ak jàngaleem te jàngale diine jàngale bi ëpp solo mooy jàngale jikko fa man zaada alayka fi lxuluqi zaada alayka fi diin aw fi safa ku la yokk ci diine rek mu ngi lay yokk ci lu baax ak lu sell te ñoom loolu la def tàggat ko tey ki fi nekk di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy tabarakallahu yore flambo njabootu Seydi Hadj Malick di ko doxal ñun ñëpp rangé wu ci joxañam ci tànneefam ci bëgg-bëggam ci tëralinam ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla gën a yokk wér mu yàgg ci sunu kanam ak rakkam yu tedd yi rawatina kii mu fi bàyyi di Serigne Abdoul Aziz